waaw gars yi noonu la demee Sénégal Ndiaye yéen laay waxal Sénégal Ndiaye yéen laay jiin Sénégal Ndiaye yéen laay bégee Sénégal Ndiaye yéen laa bëgg ngeen déglu ma. fans Balla Gaye yi gàcce ngaalaama ñi nga xam ne bëgg nañ Balla Gaye muy daan ñooñu moom gàcce ngaalaama ba pare yàlla na leen yàlla di suturaal saa su ne waaye gars yi dama bëgg ngeen ci benn affaire bu ndaw bàll Gaye 2 dañu ko war di ñaanal te ñaanal leen ko barke Serigne Bamba gis ngeen fan yi depuis dimanche ni dëkk bi neexee dëkk bi nay parce que Balla Gaye 2 moo bëre neexal réew mi daan réew mi saf sàpp ñëpp fàtte seeni stress li fi nekkoon ci stress yëpp suulu ndax Balla Gaye mu mel noonu nit ku mel noonu dañ ko war di ñaanal gudd fan ak wér su bëree mu neex su bëree ñëpp bëgg stade bi fees dell perpévu yi jar marchand ambulant yi jaay tiset yi jar gerte caafi suukar yi meew yi crème yi kon Balla Gaye 2 c'est roi des arènes Balla Gaye 2 mooy làmb ñaanal ko